Yeah, Ouais, euh, vas-y. Dans le fond, euh, moi, qui, là, vraiment, une bonne question aussi, parce que dans mon guison, on, euh, moi, tu l'as posé des questions, quoi. Comme par rapport à Bitcoin, B. Genre, là, les finance islamique, quoi, est-ce que c'est halal ou pas? Parce que dans le fond, le les plus du côté spéculation, je pense que c'est un peu interdit. Euh, idée bon moom mën naa la si wax si après mon bail gars yi ñoom ñu wax li si ok euh, j'ai eu à débattre ça avec euh, une personne bi nga xam elle était en train de se documenter beaucoup sur la finance islamique et que au final finance islamique l'une des principales limites boo xam ni mën ko appliquer sur bitcoin moi le fait que mënoo tenir bitcoin ci vois alors que yenn actifs yi mën nga leen mais man li ma ko que instant bien bitcoin xaalis la nit mu ngi utiliser bitcoin pour jënd kër pour jënd oto pour sax jënd yàpp si yenn boucherie yi à Londres donc bitcoin xaalis la ba pare mais bitcoin au-delà de xaalis bitcoin benn moyen la tamit pour mën a garder sa xaalis est ce instant nii nit ku ñëw am un million ne man bugguma sama un million yi nii CFA perte de valeur xaaral ma dem jënd or teg ko sama kër est ce que kooku dafay spéculer. su fekkee kooku dafay spéculer alors kii jënd bitcoin pour def loolu tamit dafay spéculer mais su fekkee kooku spéculer wu ñu considère que kii jënd bitcoin tamit pour mën a protéger boppam si inflation ak yooyu kooku spéculer wu léegi bitcoin nit da koy utiliser tamit pour yónnee xaalis pour yónnee dara en tout cas nit dina ñëw utiliser benn service comme Wave boo xam ne da ngay ñëw jël say CFA nga yónnee keneen mais nit mën na utiliser ay service comme Orange wala virement bancaire yooyu yëpp day jël ay frais nga ñëw gis benn solution bu mel ni Bitcoin boo xam les frais sont quasi nuls nga utiliser ko nit ki yow nga jël sa CFA nga transformer ko en Bitcoin nga yónnee ko keneen kooku bu ko jotee moom mu transférer ko en euh, en devise bu mu yor moom dëkkam est-ce que loolu c'est de la spéculation est-ce que loolu c'est haram donc man je pense que benn cas d'usage moo am ça s'applique à tous les actifs au-delà même de bitcoin moo Lini, on va dire c'est xaluf mooy spéculation ci boppam mooy juste jënd bitcoin pour on va dire se faire beaucoup d'argent si ça. si donc au final cette question est-ce que c'est halal ou pas ça dépend si vous nekk nan ngay utiliser crypto-monnaie bi man Moi, moom loolu mooy sama halal. après je sais pas il y a lan gars ci lan lañ ci quoi le micro est ouvert à tout le monde Ok, ok, je comprends. Dans le fond, c'est beaucoup plus par rapport à que moyen, genre, euh, usage bi qui def, quoi, tu vois. Euh, genre, genre, genre, la moitié c'est but, y a donc un pour peut-être euh, euh avec am de la valeur, a un monde qui échanger pour un du bénéfice, inférieur. Non, lol, dans ce cas-là, c'est c'est c'est pas, c'est haram. Mais dans le cas où l'on utilise juste comme moins, comme, euh, comme khalis euh, nga war a dara wala wala échange wala yone ki dara affaire non donc euh, là dans ce cas là c'est c'est c'est c'est c'est halal quoi si je comprends bien. C'est pour man c'est ça. Mm. ok d'accord. salam alaykoum Nourou mun na ci yok dara. waaleykum alaykoum ci réponse tu peux y aller. bon Malé ouais. Malé après pour yok tamit pour c'est vrai que j'aime bien l'expli- ni ko expliquer Nourou mais pour yok même soy xol fi amna investissement yi. nan la at least États-Unis am ben benn ab bu tudd Zoya ay islam ay like doctors in financial islam ñoo def ñoom ñoo ko créé foofu soo fa demee da ngay dugal turu soit stock bi wala cryptocurrency bi ngay seet bi léegi man bi ma gëstuwee ci ñoom nan la déterminer woon lan mooy xalaal ak lu xaraam ñoom en fait doon xool ba dañuy xool sax compagnie bi wala li nekk ci ginnaaw projet bi rek ñooñu dañuy am ay bor ak suñu defee profit ci seen li ñuy indi ci marché bi ci lan lañ koy indi ci lan lañ koy euh, investiraat mais bitcoin je me rappelle bi ma ko seete woon iw dafa check out on as if jullit mun na ko jënd quoi su la neexee mën nga xool application boobu Zoya la tudd Z O Y A mais loolu yëpp ay euh, foundation la loolu yëpp la ñuy déterminer ndax dara julit mën na ko jënd wala jënd dañuy xool dette bi fi muy dugalaat xaalis bi su amee profit ci projet ak yooyu yëpp mais bitcoin was good. Ok, d'accord, je comprends. Merci beaucoup, Bijou. Merci, c'est intervention, Bijou. Amna solo trop. Après, dinañ xol application bobu non. Je pense dinañu amul njëriñ ñun ñëpp quoi. Omar, ñu lay nuyu. Euh, ma lay dire bu baax. Ñu delo ziar bi. Alors, euh, man dama amone ñaari question. ba simple, ma première question mooy. Euh, parfois il y a des si qui nga gis crypto après quelques jours après il s'envole ça coûte plus enfin ça coûte plus cher après mais parfois je me demande mais comment est-ce possible que toi tu n'existais pas il y a trois mois nga enfin j'étais man aussi enfin il y a trois mois Les et tac tac tu prends la valeur vite fait euh, alors ça ça me semble pas logique ça je voudrais savoir comment ça marche et ma deuxième question c'est moi, mooy fait un staking bi ça veut dire que en vrai tu prêtes tes cryptos en plateforme et après il te il rend tes cryptos avec un avec un taux d'intérêt mais je voudrais savoir euh, quand tu les prêtes euh, tes cryptos mais qu'est-ce qu'ils en font derrière Nous que nous def ba gagner ces pour jox les bonnes marge voilà voilà moins c'est ma question merci beaucoup Merci, ces questions Omar. Donc euh, là, ça nous permet même d'aborder cet, aspect spéculatif des crypto-monnaies. Donc tu as parlé d'envoler ou prix. Euh, imaginons, imaginons, Sénégal, on va dire Dakar, on am fa ben genre bal, ben de football. Il y en a un million. Ben nit moko ko yor. Dik non créé mo créer ay football, football yo xamni c'est très spécifique, dañu fait et tout. mais pour le moment amul njëriñ parce que à part balu football moom à part nga footballé ko bon amul la njëriñ quoi les gars bi ce qu'il fait c'est mu dem fay ay ay ki ay influenceur mu jël ay waykat ay mbeur genre affaire demee non ku nekk mu jox la si Bali, yi ku nekk mu ne la waxal si bal yi waxal ni ñu gravé ko au delà de football objet d'art la waxal ni nan lañ leen defaré manam dal gaay jaay bal yi bu muy créer bal bu si nekk mi ngi doon jar on va dire cent francs CFA léegi influenceurs yi bi ñu commencé di si def di si wax nit yi commencé di si intéressé wu ku nekk da ngay bëgg a jënd si bali en tout cas ñi nga xam ni ils sont ils sont tombés dans le piège ba plus nit yi di ko bëgg plus muy jël de la valeur c'est juste la simple loi de l'offre et de la demande soo jëlee benn actif nga teg ko si marché bi nit yi suñu ñëw di ko gën di laajte ki day simple la majeure partie de crypto-monnaie yi ngay gis nii comme crypto-monnaie bi ma wax par rapport la série Squid ñooñu la crypto-monnaie a pris 224 000 en même pas une semaine pourquoi parce que les gens qui ont créé wala ku jigéen ki ko créé ils ñuy def dañuy un nombre limité de cette crypto-monnaie là ñu def publicité bi nit yi partout dans le monde bëgg jënd crypto-monnaie mais prix ou crypto-monnaie moom non, day automatiquement tu vois c'est mathématique quoi day automatiquement mais aussi plus nit yi di jaay crypto-monnaie bobu non, prix bi di wacc donc majeure partie crypto-monnaie yi ngay gis c'est comme ça que ça se passe mom la doon wax sank la majeure partie ce n'est basé sur rien dañuy def ay fausse promesse après ñu fay influenceur ñu am benn campagne de marketing bu extraordinaire boo xam ni fépp foo tourné da ngay gis crypto-monnaie boobu noonu ba fa yow mi sax mën nga foog ni soo ko jëndul tu quelque chose nga dem nga jënd keneen jënd keneen jënd keneen jënd à force prix bi day yokk mais la nga siy gis ba ngay jékki-jékki rek prix bi xam nga genre c'est fini wàcc lu tax parce que y a plus de nouvelles personnes qui achètent puisque y a plus de nouvelles personnes qui achètent prix bi li muy njëkk def mooy déstabiliser wu ñu ci bëri suñu gisee ni instant yi jël nañ ci seen i gain maanaam lekk nañ ci 100 pour cent deux pour cent trois pour cent dañuy commencé jaay suñu jaayee prix bi commencé wàcc ñeneen ñi gis ni mu ngi wàcc ñoom tamit ñu jaay te noonu ngay def de la même manière prix bi dafa jékki-jékki explosé prix bi day jékki-jékki wàcc en fait dee donc moo man je conseille tout le temps aux gens quand il s'agit de def seen xaalis crypto-monnaie dam leen xool bu baax projet bi c'est quoi ñoom qu'est-ce qu'ils viennent offrir sur le marché loo xam ne beneen crypto-monnaie def ko ba pare ñan ñooy équipe bi nekk ci gannaaw est-ce que ce sont des développeurs connus est-ce que ce sont des gens, ils ont fait quelque chose Est-ce qu'ils ont une bonne réputation Est-ce qu'ils n'ont pas une ardoise derrière Parce que bari, ils ont déjà créé des crypto-monnaies avant. Les Khalis, ils ont créé des crypto-monnaies ou Euh, après, ça, ta deuxième question, c'est par rapport au staking. Donc, staking, c'est juste épargner. Euh, de la même manière que banque classique, ils ont je te donne une rémunération de 1%, 2%, 3%, etc. dans le cadre du DeFi entre guillemets bi Rasoul wax ils te disent que ma say crypto-monnaie je te rémunère à autour de 5% annuellement mais et là Omar je vais t'apprendre une chose moi que ça analyser Bitcoin depuis sa création il fait en moyenne 100% par année en moyenne donc qui nous ne la dénk ma say bitcoin moi je te donne 5% par an ci kaw moom mën na sax de laal bitcoin de juste profiter de l'augmentation du prix mu jël ay 95%, je quinze aussi mu tu vois après yow a aussi récupérer bien sûr que di nga bénéficier si augmentation parce que soo ko bëggee di récupérer mais moi, il va se rémunérer sur toi tu vois donc lolo quoi staking bi ñoom ils prennent tes crypto-monnaies soit d'un koy bàyyi juste mu de la valeur après ñu delloo la ko ñoom ñu jël seen plus value soit ñoom dañ koy abal keneen mais kooku dañ ko koy abal ne ko ah, yow di nga ñu fay 10% pour cent donc ñu jël différentiel bi donc la DeFi c'est juste de répliquer ce qui se fait dans la finance classique mooy abalaate lebalaate épargner de la même manière que banque bi soo ko dencee sa xaalis da koy jël mu spéculer ko après mu delloo la ay tuuti intérêt moom mu lekk si lu bëri de la même manière que banque bi mën na jël sa xaalis mu abal ko keneen intérêt yi kay di fay mu récupérer si mu yow mu jox la yow sa rémunération de la même manière que banque bi da ngay dem si moom nga leb mu lebal la nga war ko fay intérêt gars yi ils ont pris ce système là ils l'ont collé dans le monde des crypto-monnaies c'est tout quoi mais sinon il n'y a pas une grande innovation te loo gis tamit je vais terminer par ça mooy piège bi ñoom les solutions qu'ils mettent en place c'est basé sur du code la majeure partie code bo xamni audité wuñ ko code yo xamni da fay le ay failles de sécurité moo tax bu nek nga gis hacking Dem rek la gis ben solution DeFi bu Scream xawma Cream ils ont ils se sont fait hacker de 130 millions de dollars temps est passé à mon Poly Network ils étaient ils s'étaient fait hacker de 600 millions de dollars mais quand c'est le cas utilisateur comment tu vas faire imaginons yo, Omar nga dem un bitcoin ils se sont fait hacker. Tu vas faire comment? C'est sûr que tu vas perdre tes bitcoins. ou le Tu vois? Donc voilà quoi, j'espère que répondre à ces questions. Oui, oui, répondre c'est clair. Merci beaucoup. Et moi, juste troisième question, mais genre, Gisna Rasoul Mouy cliqué, donc je vais laisser parler après me poser là. Non, du tout. Je juste confirmer par rapport à la situation sur les défailles. Parce que tu aussi. Toujours, moins, il y a beaucoup de projets, mais c'est plutôt de l'aspect. Donc, euh, il y a, actuellement le bon et tout ça. Donc, Il n'y a pas assez y a un projet juste aussi pour ajouter, pour être tout au début, par rapport à euh, les différents cryptos que tu vois qu'il y a de, la. De la, de autre que des fois dañuy dañuy agir un peu sur le côté marketing ak communauté avec ak influence dañuy utiliser mais des fois dañuy ngay ben des fois da ben crypto yoo xam quelque ben waayes ben gaan bam xaliss bu bon souvent ce sont des gens qui sont évolués dans le monde du, du- bitcoin souvent dañuy jël sen xaliss gis ben crypto dem dugal fa xaliss du coup suñ fa des xaliss par exemple parce que c'est mathématique plus plus ngay dugal xaliss plus valeur bi gën di yok c'est-à-dire que c'est la même chose avec su nekkee que nous six nous on d'acheter crypto monnaie soog marché bi dañ dañ valeur donc souvent tu peux voir aussi monnaie crypto monnaie yoo xam ne benn ñu automatiquement def et il y a plein de gens yoo ce qu'on appelle le phénomène du FOMO c'est-à-dire que dañuy dañuy crypto pour gagner pour au moins am benn opportunité c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont ñoo monde crypto bi lu la intéressé mooy se faire de l'argent rapidement donc du coup su ñu gisee benn monnaie mooy commencé à rapidement nit yi bëri dañuy dem day attirer intérêt nit yi bëri booy yu ndaw yi ñuy soog a dugg crypto bi dem jënd directement ci monnaie et du coup ça va continuer à monter Maintenant, je moom la que Nour doon wax y a plein de projets mais derrière, il y a quelque chose de solide Il y a au moins am quelque chose de solide Il y a le Dogecoin elle, elle est Actuellement, à bord les top 10 su ma mais rien il y a rien derrière en fait c'est-à-dire que même les autres ça au moins il essaie d'expliquer mais ces deux-là par exemple il y a rien derrière donc il faut faire très attention parce que ce genre de projet a da effet bien jour mën nga ñëw nga dugal fa ben benn cent mu jox 200 cent nga xëy ben jour nga donc peut-être avant nit di dugg ben def benn investissement c'est bien crypto-monnaie na xool bu baax la monnaie nekk si par exemple actuellement même les gens qui sont dans le monde du crypto le savent très bien que si solide le bitcoin tout le reste tard problème mais le bitcoin le ku dem ba nax boy ba automatiquement jëlaat xaalis boobu bitcoin taxaw xaar. voilà pour ajouter donc maa ngi bàyyi ñeneen ñi wax ah pour une fois ñu d'accord ma ngi soirée bi effectivement <laughs> ñu bari sa ñu frauder nit yi créer seeni faux crypto monnaie ba nit yi dugal ci seen xaalis dañuy dem delloo ko bitcoin naaw tout simplement Omar da nga amoon beneen question. Euh, oui donc après dama gis euh, même phénomène OPCVM yi mooy le fait que nit di jël xaalisam jox benn organisme si tax ñun investi après il lui fait un rendement euh, dama gis la même chose sur les crypto monnaies mais est-ce que je voulais savoir, est-ce que c'est des, vrais traders qui sont derrière ou ou connaître des applications par exemple une bonne application plutôt d'économie, économie les y a des postes d'investissement et on me toi tu mets juste ton argent les mais ça ça tu t'en charges pas tu crypto ou pas. c'est eux qui s'en chargent. et après en fonction du retour d'investissement ils te donnent euh, il te versent euh, rendement. Est-ce que, est-ce que ces applications-là, est-ce que c'est des vrais traders euh, qui sont derrière ou c'est des vraies personnes blabla comme moi qui, qui veulent juste profiter de l'argent des, gens? Ah, grand, ces applications-là, c'est des vrais <laughs> dans le sens où les gens sa xaalis moom la ñuy les gens nga xam ni moo Dans ma histoire ça s'est passé à Hong Kong, nous avons une entreprise euh, c'est un, c'est un ensemble de gars ils étaient environ 19 20. vingt dañoo hein, ñu né dañuy créer genre de système bi nga wax légui ni. donc ce qu'ils ont fait. mais Nour moom ku ah. ku question est-ce que mo ngi fi da mel dafa nekk appel est-ce que xaru mu ñew? Euh may may ngi doon dégg maa ngi doon dégg. ok ok ok désolé donc dama gisoon kii bi. non grave grave donc ce qu'ils ont fait mooy dañoo créer ben site web donc site web boo xam ni da ngay dem donc ils propose le même système que as dit hein genre da ngay dugal sa xaalis ñoom ils te disent un retour sur investissement de 20% pour cent pour cent annuel et tout donc nit yi euh, ça c'est par rapport à benn terme bu rasul wax sànq mooy FOMO mooy fear of missing out da nga ragal yow en fait bañ a jël train bi donc doo am xaalis doo riche lu nit yu bëri loolu moo tax ñuy dugal seen xaalis crypto monnaie yi donc gars yi ñu si bëri bu ñu gisee solution boobu dañu dem dugal seen xaalis ah te ben, ñoom gars ils acceptaient des devises mais aussi ils acceptaient des crypto-monnaies comme bitcoin comme ethereum gars dafa amoon Ken, koo xam ni dafa dugaloon presque sept 000 dollars ci loolu léegi chaque fois moi, da doon dugg ubbi comptam mu xool saa yu xoolee gis ni tey jël na vingt pour cent suba quinze pour muy kontaan tu vois donc moi il dit dem moi yi dem le gars il s'est vu extrêmement riche mu bon là il est temps de jël sama xaalis waa ji gagner affaire yi am ay problème technique mu bëgg a génnee affaire yi problème comme ça il a couru derrière son argent pendant très longtemps mu dem porter plainte mu porter plainte police enquêté gis ni en fait nii ce qu'il faisait mooy bu ñu defee seen site internet bi yow c'est le cas d'une application mais c'est pareil en fait ci gannaaw si back end bi si lañ doon juste modifier 25% <laughs> cinq pour cent def ko leneen wala gain bi son argent ñu juste changer chiffre derrière mais il y a eu aucun investissement gars nous dañ doon jël xaalisu nit yi di si foowee di campagne marketing di photo de bopp yor ay yóot gars fait des ni ñii nii ñu ngi donc moi, je te conseillerais d'éviter ces solutions là quand tu parles d'OPCVM OPCVM yooyu noonu elles sont suivies par la réglementation Banquier yi dañuy déclarer dañuy xool lan moo nekk ci biir genre tu jëlee benn OPCVM par exemple sur les actions européennes gars y dañuy xam yan action ñoo nekk ci biir OPCVM de telle sorte que action yooyu suñu defee ay performance dinañ xam OPCVM bi ñaata moo nar a nekk performance mais l'application yi ngay wax ni en fait je voulais dama quels sont en fait les arguments pour wax nit que Bitcoin du benn Ponzi et en même temps je gis argument yi ni que lii c'est un Ponzi nee la c'est un Ponzi quand tu n'as aucune information sur ñoom comment est-ce qu'ils euh, investissent ton argent Nous laissé le c'est un Ponzi si tu ne connais quasiment personne derrière la solution là qui te propose ça Nous avons le c'est un Ponzi s'il te s'il te promet en fait des rendements illimités Bitcoin tu as jékki-jékki gis mu 300%, tu as gis perdre donc day as di watch. mais Ponzi nous avons de tout le temps day yéeg loolu amul fenn ci aduna donc faut faire attention quoi loolu lay conseillé j'espère que amal na la njëriñ. Euh, sànq da nga <laughs> maa ngi tudd ok maanaam bii mooy sama dernière question maanaam sànq da nga wax ni que ni fond euh, c'est vrai que OPCV dañu xam yan fond lan moo constitué portefeuille bi mais supposons l'exemple des hedge funds où là là enfin, ils te disent pas dans quoi ils vont l'investir tu vois juste leur donner ton argent et après en fonction du rendement qu'ils ont eu, ils te, ils te versent une marge. Les hedge yi nag nan lañ koy mën a nan lañ expliquer donc. HFondé HFondé yi wax ils font de la gestion alternative c'est-à-dire que yow si sa bopp yow yaay signé benn contrat comme quoi soo ça ne t'intéresse pas de savoir ñii fan la ñuy dugal sa xaalis. mugo mais peut-être que ñoom seen bopp ay Ponzi lañ mais Bernard Madoff il avait un hedge fund c'était pareil c'est le plus grand Ponzi-man de tous les temps donc c'est le même système man tant que xamuma yow fi ngay dugal sama xaalis lan la du la jox sama xaalis moo jamais tu vas me voir dugal sama xaalis Ce genre de système yini. Ni ku nek tu as l'obligation d'aller te renseigner d'avoir une certaine culture financière Khalis dafa am solo parce que khalis mom moy définir yow sa ñak. li ngay yor sa fin du mois sa bir compte wala li ngay jot tous les jours sa bir compte Lolo, ça définit tes efforts dans la vraie vie efforts positifs comme négatifs mais dans ça définit tes efforts dans la vraie vie Légué, dem jox sans te renseigner sur nit qui est la ou la koy def ou fan la koy jëlee et etc je pense que ça c'est dangereux loolu soko défait, tu as le droit hein. peut-être que mon nga bokk si comme les premiers clients de Madoff ni ni que génn parce que toujours police ni ni que a ni ñoo n'y am khalis. je pense que loolu moo un Sénégal temps yi passe avec Petro Petron mën nga bokk ci chanceux yooyu noonu soo si bokkee yow tu vas te dire voilà ça a marché mais su que malheureusement beaucoup ci ñooñ tu vas en subir les conséquences donc man du la voilà fais ce que tu crois bon de faire su fekkee gëm nga solution boobu noonu dugal sa xaalis parce que au final ça xaalis la mais vraiment renseigne-toi quoi il y a trop de fraudeurs ci domaine bii quoi Merci beaucoup, c'est très clair, merci. ñoko beaucoup. donc là il va nous rester 7 minutes mais je profiter nuyu bay waaw sëñ Nouro ñu nekk ne mekk baax maa ngi déglu si yàlla yow bi quoi maa déglu c'est très intéressant quoi jërëjëf un problème ñoko beaucoup. donc là il nous reste 7 minutes ça fait déjà 1 h 23 minutes nous sommes ici. Je ne sais pas si vous une des question wala avez des questions. comme d'habitude je yëkkati leen sur stage, nous pose des questions C'est l'objectif de cette tour quoi. Grand Idrissa. Idrissa, nous sommes Salam alaikum professeur Nourou. salam salam non ci waaw di nuyu ñëpp ah ñoom Baye Malé tout le ñi ñi teew si si plateau bi ñëpp euh, bon depuis sànq maa ngi en mode sous-marin di di jàng di jàng comme kom d'habitude mais bon puisque li ñu dese bëriwul bu ñu mënoon si CBDC yi euh, kii bi na mu tudd sax prétexte bi mooy euh, nigeria avec INAIRA bi avant ça on a eu le Iwan e y euh, bon une grande puissance et une ambition donc on si tout, brosser tout euh, les avantages et les inconvénients pour ça Wow, waaw grand merci Cette question bi CBDC mon, ñun avis c'est purement négatif à 100%. parce que sont bien bien quoi au final parce que on a fait juste un constat Le euh, livre franchement, franchement dama koy conseiller parce que livre bi l'histoire des banques centrales et de l'asservissement de l'humanité mais c'était l'ancien euh, gouverneur de la banque centrale sud-africaine tout simplement état nous gérer xaalis banque centrale yi di ce ne sont pas des entités publiques mais ce sont des entités privées donc imaginez ce sont des gens qui définissent de la politique monétaire d'un état pas des gens qui habitent ton pays mais des gens qui ont juste des entreprises, voilà, des fonds d'investissement qui ont investi dans ces banques centrales-là. Donc déjà, le fait que... Oui, oui. L'histoire des banques centrales De l'asservissement de l'humanité. merci. Donc livre vous allez vous depuis la Rome antique nous avons ñu jusqu'à nos temps modernes donc déjà savoir que banques centrales elles ne sont pas publiques donc le mot est instant <laughs> Euh, benn Sénégal xalaatul def dara ak français CFA bi parce qu'elle n'en a pas le pouvoir et que même la France instant bii la BCE soo leen bon après information yooyu ne sont pas publiquées tout ça mais soo leen demee ba si conseil de gouvernance bi wala ce conseil d'administration vous verrez des entreprises wala des ONG entre guillemets donc qu'est-ce que ça nous dit que de dans toute l'histoire à chaque fois qu'il y a eu des monnaies, elles sont mortes quelques années après. Eurobini, leg et pourtant ça n'existe même pas depuis 40 ans 50 ans dollar leg ça n'existe pas depuis 200 ans CFA ça n'existe pas tamit. or ans. Or, nous la ñun dañuy jël naira bi naira déjà c'est instable c'est de dugal le Nigeria ici, dans de grandes difficultés une inflation énorme bi naira bi nga le Nigeria mënul génn dem Ghana. Nigeria on va créer la version électronique de ce truc qui ne fonctionne déjà pas donc tu as des monnaies elles sont inflationnistes elles perdent de la valeur chaque an on te dit on va créer la version électronique de ça donc ça veut dire que ces versions électroniques là elles vont perdre aussi de la valeur donc loolu sur la partie financière logique logique parce que au final importe le médium, maintenant peu importe le moyen que les gens utilisent, la philosophie derrière ne change pas. Tu as les mêmes gens au contrôle, tu as les mêmes gens qui définissent les politiques monétaires, et donc tu vas avoir, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Deuxième bi, monsieur le plan mais vraiment pratique, des les Chine Chine kenn nous fa se a contestation pourtant chinois yi ngi ay nañ fa li ak mais l'homme se a l'opposant chinois tel ça n'existe pas parce que tu as un État autoritaire là-bas on parle de démocratie, tu vois c'est un mélange de démocratie et de dictature la nga un État boo xam ne dafay jox benn score kii yoom nous tout de suite, population nous par rapport à ndax yow les réseaux sociaux yi <laughs> da ngay gouvernement beeg yooyu mën par rapport ndax yow si mbedd bi da ngay xeex ak yooyu mën nañoo wàññi sa par rapport rek ndax da nga dem si benn administration publique ngay kaas et cetera mën nañoo wàññi sa et loolu ça revient à suñu premier sujet wu débat bi moo nekkoon le respect de la vie privée des gens donc loolu soo ko boolee <laughs> ak benn portefeuille numérique contrôlé par l'État une monnaie contrôlée par l'État ça veut dire que yow on tend dans un monde boo xam ni nit ki du sax sañ wax A par rapport au gouvernement parce que tu peux être un contestataire nga peux a un compte en banque parce que banque est dañ nar ce compte nga liquide mais là comme nous tous nous aussi liquide bi mingi wajé dé il y aura plus de pièces et des billets donc suñu nekkee dans un monde où xamni tout le monde va être obligé comme ce qui se passe là au Salvador nga télécharger application établie, état bi nga utiliser crypto-monnaie état bi ça veut dire que yow suba état bi su si yow dalay bloquer te xam ni dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui si tu n'as pas d'argent c'est mort ne serait-ce que pour dem di jënd ak jëra donc CBDC yi man loolu la si comme futur ça va donner beaucoup trop de pouvoir aux États ça va donner beaucoup trop d'informations sur nous aux États parce que dès lors que yow nit ki xam na fan ngay dugal sa xaalis kan ngay yónnee kan moo lay yónnee lan ngay jënd si kan ngay jënd en quelle quantité et cetera nit ki mën na xam yow tu es qui au fond toi parce que dina xam nan ngay solo su xamee nan ngay solo dina xam lan moo lay influencé dina xam yow lan ngay lekk su xamee lan ngay lekk dina xam yow yan publicité ñoo lay influencé dina xam lu bëri si yow waaw donc état yi ñoom foofu lañ jëm. dañ nar a concurrencer ay ñoom Facebook ay les ak euh, réseaux sociaux quoi donc grand bi man lii moo nekkoon sama hein. franchement ce n'est pas positif du tout moo tax xam ni plus nous avancer plus les gens vont se rendre compte de ça parce que aujourd'hui c'est benn buzz carrément instant yi c'est limite dama doon gis ay commentaires sax à quand le Sénégal avec sa crypto-monnaie j'avais vu que en 2014 amoon na benn allemand bu ñëwoon BCEAO créé woon ICFA mais mu jul fenn mais voilà tu vois mais c'est pas c'est pas c'est pas une course plus on va y aller plus les gens vont voir plus les gens vont voir aussi l'importance de Bitcoin donc voilà un peu man la c'est si quoi. Euh, cher mec euh, à intervention bon par rapport au livre bi nga expliquer la naissance des banques centrales donc fini, c'est un peu difficile pour me trouver le café. donc du coup je vais ma ko soxlee dama sur Amazon mais avant mun nga xool am na documentaire sur YouTube Money Master. C'est un bon lieu pour comprendre ce que fi ko gars yi créé fu commence, historique et tout comme ni ko livre bi waxee rek alternative quoi pour nous ko mënul am jaajëf. sànq nous boo ma mayee ma posé la benn question avant de s'il te plaît. Euh,

pour que dugul trop trop trop de crypto-monnaie euh, c'est un moyen pour euh, démocratiser du en tout cas pour nous nga xamantene bon ñu ñu kiye ay données lolu gêné wu leen def ay transactions état bi di contrôler amna na xamantene lolu ça les dérange pas donc euh, je sais pas je sais pas <laughs> am na xamantene xamante ne bon gêné wu leen mais pour ñu yàgg gëstu ci crypto-monnaie pour ñu déggee loolu côté centralisation la décentralisation la xalaat mm. d'autant plus que euh, Bitcoin décentralisation moo ko moo ko mm. oui ma yokk si rek li ñuy nit yi di que ces solutions là dafa la connexion internet dafa le smartphone dans nos pays là imaginons que nekk benn je sais pas Tambacounda ou fin nga xam a plus de pièces et de billets xanaa loolu état bi kon day garantir une connectivité on va dire à toute la population et à 100 une disponibilité à 100 en cas de hacking comment ça se passe imaginons parce que on voit tous les jours des solutions qui sont hackées gars suñu hackés comment ça se passe est-ce qu'on est remboursé en attendant est-ce que devant am benn fonds bu permettre yo nga mën a jënd ak jaay wala nga fay wala ak leneen tu vois il y a tellement de questions qu'on peut se poser si affaire bii nii mais bon, on verra. Omar, ne ah, Merci. Euh, maintenant, euh, si on se rappelle bien, dans les années 2000, il y avait ce qu'on appelait enfin, la bulle Internet, que en plus, si nous avons investi ils sont devenus millionnaires, certains milliardaires. Maintenant, après, maintenant, la question que je me pose, mais qu'est-ce nous dit que enfin, les crypto-monnaies, ce n'est pas, pas une bulle et que d'ici quelques années, ça ne va plus jamais exister les gens qui, qui sont investis tardivement n'auront plus rien, auront perdu leur argent, comme, comme l'Internet dans les années 2000. Est-ce que là, par exemple, tu aurais un argument convaincant qui, qui, va nous permettre de se dire que ah, les cryptos, ce n'est pas vraiment une bulle ah, dans la vie, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, qui sont plus puissants que moi, qui sont plus riches que moi, etc. Dont Michael Saylor le gars, il a décidé de mettre je sais pas combien de milliards de dollars de bitcoin dans sa trésor maanaam c'est si entreprise au lieu muy banque je vais garder des crypto-monnaies. donc je vais garder bitcoin dans ma trésorerie des entreprises comme Tesla il y a une entreprise, j'avais la liste mais bon je ma am temps génne ko wax len tu vois toutes ces entreprises là qui décident de garder du bitcoin dans leur trésor c'est parce qu'il y a une raison dans un état Salvador moom moment ko légalisé def comme une monnaie légale dans le pays mais là l'Argentine est sur le même chemin l'Ukraine est sur le même chemin l'autre jour j'ai vu une information à vérifier comme quoi la Russie devait jënd ay bitcoin pour se prémunir contre la chute du dollar comme genre instant sabini c'est fini lolu c'était peut-être un argument dans les années 2014 2015 mais depuis 2017 et que banque banques centrales ont commencé à créer des crypto-monnaies donc des CBDC on va dire qu'on on vient au monde de crypto-monnaie c'est sûr et certain ce n'est pas une bulle comme internet parce que internet c'est pas une bulle bulle elle exploser internet mu tu vois donc au début internet parfois je voyais des parfois je gis nit partager euh, ay titres journaux à l'époque quand il disait que ça va mourir que il a a di yor téléphone di wax sa live si mbedd genre avec téléphone aussi comme on y di dem toog si kalamu benn écran nga naan da ngay wax nit il parlait des visio aujourd'hui c'est naturel crypto-monnaie je pense qu'il y a 10 ans suñ téléphone, il y a 5 ans même suñ téléphone room bi n'y aurait pas beaucoup de gens tu vois donc quoi donc moi je pense que voilà on est déjà dedans c'est pas vraiment une bulle li nekk bulle mooy yeneen crypto-monnaie man je parle vraiment de bitcoin après yeneen crypto-monnaie yi moom ce sont des bulles et ñoom ñëpp ñu ngi exploser benn par et si tu veux vraiment la preuve et chaque jour je dis la même chose mooy da ngay dem si site yi nga xam ne ñoom ñooy joxe prix wu bitcoin yi genre ay coin market cap ay coin gecko ay yeneen ak yeneen nga dem xool analyser année par année depuis la création du bitcoin bitcoin toujours number one mais les neuf restants si top 10 chaque fois day changer c'est parce qu'il y a une raison c'est parce que la majorité de ces crypto-monnaies là un sens tu vois wala niti yi dañuy ñëw bon vous devenez ñu investir après nous gis ni bon ça n'a pas vraiment de sens ñu dem mais dans tous les cas dañuy le top 10 bi Dogecoin Shiba Inu ay BSC en a yëpp dans quelques années tu les verras même plus donc voilà quoi ma réponse et là ouais je répondre à ces questions hein oui Bouba merci beaucoup. ñoo beaucoup bah du coup c'est la fin hein ma voir wax depuis boobu Légui. léegi déjà je vous remercie tous et toutes si plaisance, oui. Euh, ko jéem organiser quand même une fois par semaine parce que gis nañ ni ci synthèse beaucoup à Bitcoin yéen tamit a fekkee am ay sujets yoo leen bëgg ñu aborder n'hésitez pas ngeen wax ñu ko ngeen ñu ngeen wax comme ça ñu aborder ko ñun ñëpp. on am naa sujet mais man du bitcoin. non yow dama créé sur <laughs> non mais bon blague à part daal en tout cas c'est ouvert à tout le monde en tout cas quand il s'agit de bitcoin et que su fekkee da ngeen sujet n'hésitez pas à nous wax on va monter ça avec vous su fekkee tamit des contributions des questions n'hésitez pas aussi quoi donc je vous remercie tous xam naa bàyyi gars yi ku nekk tàggoo ñëpp ñu nekk ci stage bi commencer par Moses. nous ñoo les remercier comme d'habitude. habitude rek jàngat nañu lu bëri si affaire bitcoin et que tamit ma ngi nuy ñep ñu nekk stage bi euh, ñi ci audience Merci. Merci, merci tout le monde. merci si participation merci question Omar Ouais, ben, nous remercier Bouvard parce que man je vois que Bitcoin ak que, euh, enfin ni mu complexe nous expliquer cette langue amul dara luko ko pour nga pour nga comprendre en tout cas merci si intervention yi def pour pour et ñu walu bitcoin merci beaucoup. merci beaucoup ñoko c'est le but vraiment c'est le but quoi merci pour question aussi Idrissa. Wow, professeur comme d'habitude rek <laughs> jërëjëf si partage bi une bon initiative depuis depuis le début quoi. Je di nuyu ñëpp si si TV plateau bi incha allah jaajëf. ñoo Idrissa ñoko bok façon li dina disponible après sur YouTube mais aussi à podcast euh, podcast bi na ko lancé inshallah la semaine prochaine comme ça sera disponible pour écouter, pour ñep quoi euh, Malé. Yeah, grand Nour. Bah, merci, hein. c'est toujours comme d'habitude, toujours très pertinent, machallah. Donc, me remercier Guy, Nek, bi Donc, euh,

peut am ay inter interférence ak euh, bare si dañuy yëngatu voyons ce qui va se passer quoi jërëjëf ñu ngi nekk baax ñu suuf vous Bijou ak wala ak ñi nekk suuf yëpp daal di leen sant bu baax jërëjëf programme merci beaucoup Jerejef. pourtant waxoon nañ si rapidement euh, au tout début mais xam naa lii dinañ si defaat beneen débat vraiment spécialisé pour affaire bi quoi amul problème bah donc du coup merci beaucoup gars Euh, lii dinañ ko publier si chaîne YouTube bi Yeewu Jotna incha allah ko aussi def si podcast yeewu semaine prochaine naa ko activé waat mais sinon je vous remercie yéen ñëpp. et maa ngi leen laaj room bi si kaw. bége bége lal case bu verte bi dal di suuf room bi bu defee ngir jot notification bu nuuru ñëwee ko jërëjëf. jaajëf waay donc je ferme la room dans cinq quatre trois deux un jaajëf.